ki ñu am mooy euh, Enrico de Boss. Enrico de de Boss moom mi ngi jógee Allemagne il est avec nous sur ce plateau génne na benn projet mais junni la ñu njëkk a jox euh, comme euh, titre ñu ngi lay nuyu bu baax. yaa salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di nuyu Kalzo di nuyu Awa di nuyu Samira di nuyu madame aussi. from Sénégal wala from Allemagne. yeah from Diourbel. from lu la yóbbu Allemagne. bon dama demoon Italie donc doon jàng foofu après ma nekk di job. Mm-hmm. après ma dem seeti sama benn frère bu nekk Allemagne et voilà quoi ma commencé di jox foofu aussi waaw. Ah <laughs> bi mooy sa premier projet. non génne woon naa projet bu tuddoon Kunta Kinte 2018 naa fii aussi defoon naa ak émission. Euh, bi ma delluwaatee laa génne woon benn sound bu tudd Kumba am ndey Kumba amul ndey. après ci laa génnewaat mixtape bi man ak ñoom. yaa ngi ko génne ak waa suma juumul néegu rap. Euh, c'est sorti euh, mi ngi génne le décembre bii nii. d' accord le 18 décembre macha allah su ma ko xoolee sama xel day dem si sama benn xarit Duking ndeysaan ma koy nuyuwaale de passage. Duking bu ma ko xoolee dañuy da ngeen a niroo nag sincèrement da a niroo mais bi en fait pourquoi junne. dafa nekk lu nga xam ne nga fàtte indi caxagul. non <laughs> doon lu nga xam ne ñun suñuy réalité la xam nga. Ah. di nga gis géwél mu ñëw tagg la nga yëkkati xaalis may ko. Fallou Faye non non nduroowuñu de. ci waaw maanaam kii Fallou Faye de nduroo. maa ngi koy dégg doomu Mbengue Faye. nduroowuñu de nga yëkkati junni ne ko may naa la junni te di ko xeeb affaire yooyu noonu donc affaire bi dama tëdd nii rek mu ñëw sama bopp mm-hmm. mu génne sound bi nice te aussi gars yi apprécié nañ ko voilà. alors Aminata Yad alias Aminata Xaas ah Samira. nekk greffière de formation en même temps nekk chanteuse Aminata ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay ma chérie maa ngi lay fay bu wér a wér a wér euh, di souhaiter une paix ak une grande joie ak seen téléspectateurs yi ñuy seetaan ñu ñëpp. macha allah macha allah euh, euh, li ma neex si moom mooy dafa allier deux choses yoo xamante ne euh, logiquement dañ naan sax àndul. mais macha allah nga nekk jigéen prouver ko wane ni que mën na nekk. comment ça se fait déjà balaa ñuy dugg ci yërmande bi nga nekk greffière de formation ba pare laal musique bi. <laughs> dëgg la Khadija d'emblée dañu naan c'est contradictoire ndax xam nga solennité de la justice bokkul dara ak liberté bi nekk ci musique. voilà mais quand même dañ naan rek foofu suñu creuset d'inspiration la ndaxte yi ma boo seetee ca ndar laa jóge man ndar laa dëkk macha allah dafa di une société en miniature. ça veut dire que boo yeewoo daa gis problème u askan bi yëpp ñu ko fay débattre daa gis xeet yëpp ñu ñëw xëy si mhm. tribunal ñii di wut si kayit ñii ñëw di lay si ñii di wut si leneen ak leneen ak leneen. ça fait que comme ñun dañ ñoo tënk foofu noonu daanaka doo mën a wax lu bëri ndax code bi mi ngi fi mais bu la yàlla dimbalee ba nga jël rob bi tege ne war nga mën a baaxee sa askan même ci li nga xamante ni mën na ko dimbale ba du yegg ci yenn travers yi. Samira Koulibaly sa problème bi nga amoon ak sa far amoon xaalis bi abal ko ko après ngeen mu ne du la fay loolu yaakaar naa ne. mën euh, tribunal. yaakaar naa loolu mën naa tribunal mooy bi ma woowee woon di jooy naan ma sama. salaire bi laa ko jox mu ne ma yow le 15 balaa le 15 ñu bàyyante te nga waxoon ma ni ma ko expliqué. te mën naa la nga yóbbu ko ci yoon yoon a ngi ni laaj <laughs> nañu dem ci li nga xam ne moom mooy euh, single euh, bi nga xam ne moom la ñu indil di yërmande xaw ma ci album la nekk wala ci lan la ko def. waaw ba pare def ci non à l'immigration clandestine. voilà mooy euh, album bi ñu génnee le 17 le 17 décembre fii au Grand Théâtre delluwaat présenté ko waat Saint-Louis. Euh, le 18 décembre au cercle mess des officiers yërmande mooy titre bii ngeen di seetaan nii ci clip bi macha allah mu di lu jóge ci biir xol rek mu di jooyu yaay di jooyu sœur di jooyu xale bi nga xamante ni day wut yoonam te gisagu ko mu metti loolu ñu koy delloowaat ci boromam en même temps di di di woo autorités yi nga xam ne yàlla moo leen teg fii ñu war a mën tamit jàppale xale yi pour ñu mën a gis seen yoon loolu moom moo tënku ci way boobu naan yërmande te nekk en même temps album bi. turu album bi surtout mooy euh, ñaata temps ça fait combien nga nekk ci musique bi déjà. waaw maa ngi ci sama douzième année de musique. douzième waaw douzième année de musique mais officiellement quand même euh, mën naa ni ci dix dernières années yi rek laa ci soobu dëkkantaan. Mm. mais xam nga ni euh, musique yombul. Ah da nga ciy bëgg da nga koy bëgg dugg ci ak passion mais boo duggee ba ci biir nga gis ay réalité am nga xam ne laaj na leneen mhm. loolu moo tax ba ma ci duggee il fallait aussi ma dellu école dem jàngi macha allah xam lan mooy yoonu musique ndaxte boo amee tuuti respect ci ñi lay déglu di la seetaan boo demee ba war ci dugg da nga ci war am noo ci war a taxawee mhm, loolu moo tax album bi jël temps bi mu mais en tant que doomu ndar euh, ni ñuy mel ci seen biir kër sëykat la ñuy doon seen valeur sëy bi mm. tribunal bi ak la loolu compliqué wul ci yow déedéet xam nga àdduna man nit ku nekk da ngay am credo. am loo gëm am ngëm-ngëm. man pour man l'impossible n'existe pas àdduna dès l'instant nga nii lii dina jafe rek day jafe. boo nee lii duma ko mën rek d'emblée mënatuloo ko mais boo duggee ci mbir nga gëm sa bopp gëm yàlla yaakaar ko ci. te góorgóorlu ci rek yàlla daf la ciy fekk si noonu rek laa ko defee ba mën a atteindre le juste milieu ba fenn soo xewul ci kàttanu yàlla euh, mu ngi nii nee na ma soxna la euh, sama soxna xarit la donc bu ñëwee toog ci plateau bi euh, ngeen yaatal ko ba mu yaatu yaakaar naa ni yaa mu ngi noonu toog am na solo mm-hmm. alors retour un peu si Enrico bi nga xam ne génne na benn mixtape on vient de recevoir tout de suite une mixtape de douze titres pourquoi déjà tout douze titres yi ak f lañ ko mën a retrouver yeah boo gisee bi ma dellu waaye Germany dafa tombé woon ak Covid bi donc génnewu ma woon benn sound parce que dañu tëjoon confiné ñu donc amoon possibilité yi mais maa ngi doon liggéey quoi waroon na ëpp sax douze mais donc comme que gars yi ñoo décidé pour ñu def ko douze après ci lañ ko defee douze quoi donc boo duggee dañ ko gis ci plateforme yëpp. yaa defal sa bopp prod bi. ma def prod bi ma def pourquoi nekkoo ci label ou un producteur. waaye parce que gisoo en fait contacté guñ ma te aussi man bon. comme que samay projet dama siy financé xaalis dama siy def liggéey bi si war yëpp donc su fekkee gis naa ki nga xam ne mën na def double bi wala triple bi donc pare naa pour signer quoi mais pas koo xam ne dafay def comme li may def. sa musique naka la demee en Allemagne est-ce que euh, yaa ngi def ay prestations yaa ngi participer ci ay festival wala liggéey bi kese moo la yóbbu Allemagne. non en man mën naa wax que rap mooy sama liggéey. Mhm. mais bon bi ma demee Germanie dafa tombé woon ak Covid bi donc amuñu woon benn possibilité pour mën a def benn show foofu noonu donc mais incha allah am nay affaires yu ñuy waaj foofu noonu di ngeen ci xam dara yow quelque temps. en sant nañ la gërëm nañ la bu baax a baax a baax mais da ngay toog euh, ñu dem ci Aminata moom tamit wax ñu ay projet waaw euh, mën naa ni projet immédiat bi actuellement moo di euh, concert bi nga xamante ni mooy concert de présentation de l'album Yërmande bi ñu war dem defi Saint-Louis suñu dëkk fa ñu jógee macha allah war ko defee la Louise incha allah le 5 février. kooku mooy euh, le projet le plus immédiat mais beneen projet bi nga xamante ni aussi euh, ñi ngi ciy liggéey te mu nekk en cours moo di la tournée nationale bi ñu bëgg def pour la présentation de l'artiste à l'échelle du Sénégal à travers les 14 régions du pays et en même temps ñun dañu def musique pour servir loolu mooy suñu suñu credo musique Euh, sortie boobu ñuy defi suñu tournée boobu ñuy defi benn thème majeur muy non à l'émigration clandestine parce que ndar la ñu dëkk mhm. Euh, gis nañu la plupart du temps foofu point de départ la pour xale yi nga xam dañuy jël bato bi di dem fu mel ni Germany wala ñuy dem euh, Barça wala ñuy dem feneen ak feneen te du nekk ci yoon wa ñu war a jaaree ñu bëgg nag euh, ànd ak association de jeunesse yi nekk ci dëkk yi ànd ak en même temps association de femme yi pour jéem a sensibiliser jeunesse bi nga xamante ni moo nekk à travers le Sénégal pour aussi contribuer tout simplement à ce fléau. ba pare man dama ko fan instant macha allah bonne continuation. merci ma la communication elle allah macha allah. ñu ngi lay gërëm Enrico aussi yow tam ñu ngi lay gërëm c'est quoi les projets le mot de la fin et pour combien de temps. maa ngi fi ba si kanam xam nga di wax gars yi ñu dem get projet bi parce que def nañ ci liggéey bu war job nañ ci ak xol xam nga te aussi am nay ay sound yu dope am na ay ay OMG ñu ngi ci. Bra Express Element Akatsuki El moo ak yeneen gars yi donc projet bi doob na te am na ay thèmes yu ci nekk comme néegu zing gars yi ñu ngi koy fiil bu baax donc di wax gars yi bi nag dañu nekk ci communication projet bi def si li si war parce que projet dafa nekk la nga xam ne euh, boo ko génnee il faut nga def communication bu ci war pour gars yi mën ko déglu. da rajo. yaa ngi comprendre non dinañ fa jaar ah, boo ñëwee RFM ñu yaatal donc dinañ gën a yaatal dinañ gën a yaatal yaakaar naa ni benn laaj rek mooy laaj après balaa ngay dem aussi mooy euh, invitation bi que kontaan nga balaa ma Pape Cissé naa bu baax a baax Pape maa ngi dégg bu baax di ko siyaare merci encore xam nga waa Bawol aussi di nuyu Enrico famille bi nekk Podor tamit xam nga ñu ngi jàpp ci job bi mm-hmm. di leen